asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Faye nekk dëkk Géejawaay fii mit euh, juddoo fa màggee fa yaroo fa nekk éleveur de mousson de mouton de race laadum euh, en même temps nekk comptable de profession mais élevage moom dafa nekk sunu passion ñu juddu si màgg si yaru si ba sunu borom def ñu am sunuy xaru bopp wax dëgg yàlla bon élevage nous euh, sommes en 2015 je si je me rappelle très bien le 29 janvier 2015 nous avons notre première premier di Nana, Nana, mi ngi si la bergerie Nana, nous ñu le 29 janvier si Ben waay Ousmane euh, Ousmane euh, Diop ancien coach de l'équipe nationale basket. maak euh, Jibril Ben Mohamed Diagne sama associé wax dëgg yàlla xar yi li ma ci dugal nee naa leen dama ci juddu lu tax dama si juddu dama fekk sama papa di yar ay xar mais paa bi mu amateur la woon paa bi amateur la woon euh, daan yar ay xar tolaa biir yu rafet wax dëgg yàlla ñun mosuñu tabaskee xar bu ndaw te mosuñu jënd xar tabaski aussi ba jusqu'à présent ba ni may yar nii mosuñu jënd xar tabaski bon passion boobu nag bëggoon ma bëggoon ma bëggoon ma bu baax a baax a baax a baax toujours dama doon rêve am sama xar bopp toujours dama doon rêve am sama xar bopp ba yàlla ni mu defee en 2015 ñu am sunu xar sama associé nag di Djibril Ben Mohamed Diagne ñu ngi xamante en 2005 ñu ngi bokk classe quatrième collège si collège Saldia moom it mu nekk passionné xar pigeon sax moo ñu xawoon boole dañ daan dem ay di daw ay foire di daw jàng di dem ay foire obélisque dem foire obélisque dans daw jang ay année 2009 2010 2011 ñu daan fekk foo xar yi boobu daawuñ sax xam turu xar yi ni ni ko gars yi xamee léegi dañ naa ñëw rek di wër si box yi di xool xar yeeg yooyu ba ay 2012 ñu fa daan fekk ay boor séeréer waaw le meilleur mouton de tous les temps waaw ba yàlla def le 29 janvier 2015 laa toog noonu par hasard jibi woom ma ne ma am na benn xar bu ñuy jaay si Expat Dakar bi nañ ko xooli mu woo ma téléphone ñu xooli ko ñu négocier ba jubag waa ji premier xar bi bu ñu njëkk a jënd ñu ngi ko jëndee ak 400000 francs muy naanaa naanaa moom may nday gétt moom mi ngi géejawaay moo ju moo jur sunu maal bi ñu njëkk a juddulu muy ëttu rijaal boobu ñu ngi ko jaay si tabaski bi mais ki ko jënd tabaskeewu ko da koy da siy liggéey quoi comme géniteur bon tey nañ ci benn si cent boobu tey nañ ci benn doom aussi moom am na ay seex sax semaine passée am na ay seex yu moom la taawlu góor ak jigéen donc l'ol dal moo ñu dugal ci élevage bi. dugg ci depuis janvier 2015 mais ren lañuy Sogo exposer exposé foire ci première foire sectorielle Adam bi bu amone géejewaay moy zone géejewaay Dakar yalla def machallah ak qualité sujet ñu yobone suñu borom suturaal ñu ba ñu qualifié di waajal saladam bi nak saladam bu mag bi euh, le 19 janvier 2018 di ko waajal bu baax a baax di préparer sujet yi pour préparer exposition bu rafet wax deug yàlla pour bégal amateurs yi. bu baax a baax a baax a baax incha loolu moom je pense que <laughs> anecdote la parce que mës naa ne benn waay xar soo ko yar doo jëw doo toog si jotaay man gis ngeen heure bu ma wàccee si liñ jot a gisante heure bu ma wàccee maa ngi ci xar yi sama liggéey laa yor je suis un comptable su ma wàccee 19 heures bu xar yi nekkee géejawaay dama daan wàcc jaar si si xar yi toog fa ba 23 heures ñibbi julli gee reer tëdd nelaw mère moom aussi bi fi xar yi ñëwee. yaa y a 3 mois 4 mois de gis nga damay wàcc lu mu guddi guddi damay jaar Mermoz toog waxtaan ak jibi ñu toog xool xar yi xam nga ba 23h ma ñibbi vraiment passion bu yéeme la nattu la nag mais nattu bànneex la nattu bànneex la wax dëgg yàlla bu la bu la bu la bu la duggee moom beneen affaire la quoi. di wax ñi nekk ci xar yi bëgg xar walla bëgg see dugg na ñëpp ñëw ñëpp xaj nañ ci wax dëgg yàlla ñëpp xaj nañ ci. waaw lu tax gars yi di fay yenn laadum di jar yenn prix yi wala yenn éleveurs yi di fay yenn prix yi en fait euh, élevage de mouton de race laadum dafa nekk un élevage de prestige da nga gis léeg comme poule poule euh, poule d'ornement yi muy brahman yi muy orpinton yi di cochin yeeg yooyu nekk ay ginaar di jar ay couple cent cinquante wala deux cent alors que boo demee ci marché bi. Ginar bi mi ngi jaar 2 kilo bi 3000 man mi yarna la yarna ginar restu reste tout récemment laa bàyyi donc dafa nek espèce yu rare yu rare motax ñu ñu prix bi cher wax deug yalla mu rare te da ngay gis aussi ben spécimen bu juddu si ben mbar tay ku melni ni phénomène ni juddu ci mbar wax dëgg yàlla macha allah nit ñew ne da ka bëgg ngay ko mu ñew fi ñewat fi ne la ngay ko mu ñew fi ñewat ngay ko mais bu xëyee ne la si jaay ma phénomène tey 10 millions mosoo ko dégg si xar mais da nga ko koy jaay loolu mooy indi yenn prix yi tey genre mu nekk aussi genre spéculation wax dëgg yàlla xar yi rafet nañ ba pare dañu gënante tey boo gisee ku mel ni Mami Fall tey wala ku mel ni Dégéen ñu ñu bari dañu yaakaar ne ay kuy lañ tey jii ñoo ëpp phénomène mii di kuy donte xale la donc dafa nekk lu raar tey jii am man sama pap bi mu njëkkee gis xar dafa ma yu jigéen am na am na xar yu jigéen toll ma ne ko am nii nii. yaa ngi gis ñu tax ay jigéen lañ donc loolu moo tax prix bi cher loolu la wax dëgg yàlla te dafa am benn valeur absolue bi muy benn valeur ajoutée boo xam ne am na ci xar yi wax dëgg yàlla tey jii Mamy Fall mën ko ci def xaalis wala phénomène nga def ci xaalis mais tey ay descendants am mais xaalis nga leen di jaayee te aussi qualité génétique bi mu ngi si xar bu la gën a nekk géniteur mais moo la gën a cher wax dëgg yàlla xoolal tey ku si mel ni Boy Séeréer wala ku si mel ne Nations Unies ku si mel ne magistrat tey jii boo doon jaay seeni doom wax dëgg yàlla parce que quali qualité spécimen yi ñuy jur mooy waral ñoom ñuy cher ba pare demande bi li ñu naan la demande est supérieure à l'offre donc loolu day jouer benn spéculation de prix si xar yi dafa dafay exister si xar yi loolu moo tax ngay dégg ñu naan ay xar yi dañoo cher rek yooyu du question de gars yi dañ ko teg fu ñu àggul parce que da gis ni tey oto kiy jënd oto kiy jënd raafkaat tey ak ki jënd benn benn Dodge wala yooyu pourtant oto oto la mais da nga gis bi jar 5 millions bi jar 10 millions bi jar 15 millions lu oto bi gënee oto bële parce que rafetaay bi la taar bi la prestige la c'est un prestige moo tax ñu koy wax élevage de prestige wax dëgg yàlla. waaw lu tax mbote kese tey jii kii pour justifier la loolu tey doomu mami Fall bi juddu jour Magal Touba tey ku ma ci fayoon 1 million du ma la ko jaay parce que lu tax nday ji deux papa ji papa ji kan la papa ji mooy Baye Pël Baye Pël doomu kas la kaskas doomu Boy Séeréer Boy Séeréer pour moi pour man c' est le géniteur de, c' est le meilleur géniteur de tous les temps wax dëgg yàlla man moom dama ko bëggal sama bopp. donc tey moté bi mu ngi benn potentiel génétique boo xam ne wax dëgg yàlla mën naa ne gétt gi fii ñi fi nekk ni yëpp kenn amu ko jeune mâle bi peut-être ñoo koy am léegi tay ku ku bëgg a pour jënd bi fi xar bi bëgg gis potentiel qualité baa trois xar parce que man li ma wóor te wóor mbote mooy yaay ji mois mu commencé produire ni yaay ji donc da ngay xool tey valeur ajoutée bi la la dans un sur euh, sur un laps de temps joué si prix mbote wax deug yalla tay nit ñi da ngay gis ben géniteur tay ñep di wër domam ñep di wër ku ci melni ni magistrat fi mu ne nii ku koo dégg magistrat ko dégg mu ne magistrat qualité génétique bi la qualité ak sang bi ba pare aussi magistrat ñew ñew euh, sa dernière saladam ñew dernière saladam remporté meilleur mouton du Sénégal donc tay ñëppay daw ci domam day def bay créer ben buzz ci éleveur yi lolu aussi charme élevage bi la tay di phénomène bu yalla defone mu jël meilleur jeune mâle mais nit ñi dañuy daw si ay doomam donc loolu aussi day jouer spéculation bi jeux jouer si spéculation des prix tey jii doomam wax dëgg yàlla nii nii mekk ni rek domam duma ko jaayee moy de 1 million ça c'est sûr boko xolé xoolee macha allah taar beeg qualité génétique beeg wax dëgg yalla te amna naa ne bon amugo fi dom tëb na tëb na je pense 3 à 4 femelles mais amna naa yaakaar ne doom yi mu nar a jur fii géniteurs yu duñ ko jur. ça c'est sûr parce que potentiel génétique bi la yaakaar nag lañ ci am li ci des yàlla moo koy mottali incha allah euh, jeune mal bi mi ngi tudd phénomène lu tax phénomène bi mu bi bi muy judd juddoowul sama kër mu ngi juddoo ku ñuy wax Saliou Touré di Zal dëkk golf côté boobu la sama berger bi njëkkoon nekk jeune mal bi Baye mooy papam Baye kaskas kas-kas moo ko Kaskas Boy séeréer le champion de de tous les temps Moko ko yaay ji sëtu Tidiane la Té mom si côté papam daf ci rax daf ci rax Birahim donc mu dajalé ay sans ou ay géniteurs yu yéeme génement bi ma koy gis dégg naa ko un mois ab 1 mois avant ma koy gis doomu Baye Pël bi doomu Baye Pël bi nekk si saal doomu Baye Pël bi nekk si bon mu jaaxal ma xaw ma xaw ma woon ne meloon na un jour daal laa jaar golf ñu ne ma kañ dem ñu xooli doom sama benn xarit ne ma kañ dem ñu xooli doomu doomu Baye Paul bi. ma ñëw xool jeune mâle bi muy daagu ma xool par rapport âge mi am je pense bi ma ko gis mi am deux mois par rapport âge mi am mu am mensuration yoo xam ne mbote yi bëri amuñu ko par rapport à deux mois ma xool yaay ji gis wax dëgg yàlla yaay ji macha allah nekk une femelle bu rafet am critère u laadum pur sang wax dëgg yàlla ma laaj ko sang bi yëpp mu expliqué ma ko mu dal sama xel bon wo man jënd sax taxu moon jóg bi ma fa njëkk dem ma gis ne wax dëgg yàlla jeune bu rafet la ma ñibbi sama kër xelam nekk si moom si man xelam nekk si moom sama euh, sama xel nekk si jeune mal bi ka trop ma xëyaat semaine bis ma demaat fa mais su ma demee jeune mal bi mel ni day changé chaque jour mu jaaxal ma trop chaque semaine ma dem fa di ko xool chaque semaine ma dem fa di ma xool ba mu intéressé ma bi ma intéressé ba ma ñëw di jënd sax saal dafa ma doon reetaan na ma noo saay bàyyi tooñ ma ne ko non billaay dama bëgg jeune maalu ma ne ko réfléchir si ma bi mu si réfléchir mu woo ma ne ma damay jaay jeune bi ma ko ñaar nga koy jaayee mu ne ma 2 millions ma ne ko loolu dafa bëri. très sincèrement am na éleveurs yoo xam ne nag dañuy nëbb seeni prix man nag wax dëgg yàlla nëbbu ma nëbbu ma sama prix mu ne ma 2 millions ma ne ko wuu loolu dafa bëri ma ne ko bàyyil ma réfléchir bi ma réfléchir une semaine après ma bëgg ko dugal xar mais yàlla def yi mu yi mu bëggoon ma dugal ko yëpp si transaction bi dafa nekk ay femelles yoo xam ne si lay liggéey actuellement mënuguma leen génnee ñu dawal trois trois jours quatre jours après ma woo ko ma ne ko daal femelle bi euh, jeune mâle bi bëgg naa ko wax dëgg yàlla bëgg naa ci liggéey donte yor naa sama beneen mâle bi naar bi mais bëgg naa ci liggéey parce que am na lu ma gis si moom ma ne ko daal mën naa si un million cinq cent ñu wax ñu wax négocier deux jours trois jours après papam si boppam moom woo téléphone na ma daal wax dëgg yàlla gis nañ ne bëgg nga jeune mal bi te depuis bi nga ko gisee ba léegi yaa ngi fiy ñëw chaque jour soo si tegee deux cent mille ñu jaay la ko ma woo sama yenn xarit éleveur ku si mel ni Jubéeru di ko remercier au passage ku si mel ni Alain Touré sama grand bu baax wax dëgg yàlla ak ku si mel ni Amène Ndiaye bergerie Le Saloum borom Elias ak borom Farish ñu ne ma daal deux cent mille yi bu mu la xañ jeune bi pour pour wax la valeur du jeune mâle bi jour bi ma avance si jeune mal, le lendemain la 2 millions 2 millions yi Zal wax si la ci fay donc muy sante bu parce que peut-être dafa sama wara sama loxo ko deux mois après parce que à cinq mois la féré parce que comme ça je dafa trop dama ko mu ba matal ba presque un mois parce que d'habitude xari mois la ñu mu mu à cinq mois fekk ñu tabax fi bergerie bi ma récupéré ko jaaru sax golf ma récupéré ko indi ko fi ak tëng yi donc neub ko fi peut-être diko défar diko renforcer wax dëgg yàlla pour toppatoo bi gën a jaar yoon ba yàlla def ni mu mel muy waajal saladam bi wax dëgg yàlla te bëgg nañu incha allah mu dugg ci compétition bi catégorie jeune mâle incha allah noonu daal laa def ba jot ci jeune mâle bi di gërëm zaal nag wax dëgg yàlla parce que je suis ma jeune mal bi ba chaque jour day jeune mal. xol suis lu mu nekk waaw di un jeune mal bi mu def wax dëgg yàlla di koy toppatoo waaw nan ma un jàppal mal. dina baax kii moom champion lay donc jeune mal Je pour wax la ne du sama jeune mal jeune jeune Abdallah jeune mal parce que ñu bëri dañ may laaj ay ay nouvelle am donc mu nekk ndamu yëpp wax dëgg euh, très sincèrement bon xar moom du ma ne gétt gi amul lu fi jaay wala amul lu fi jaayul très sincèrement phénomène bëgg naa fi Nations Unies toll ci élevage wax dëgg yàlla mu toll fa te mu daagu sama gétt pour le moment neew ma jaayuma ko mais pour le moment fi Nations Unies toll dem ba jël concours mâle au Sénégal wax dëgg yàlla bëgg naa pour mu toll fa gëw ma ne nii nii nit mën naa yëkkati 10 millions. jox moko ma jaay ko phénomène très sincèrement parce que li ma mën a apporteel si gétt gi donté bëri mu ay femelle trop gëm naa ne mu ëpp 10 millions en un an mën la indi lu ëpp loolu très sincèrement bu yalla défé xari yi di nga gis li ma lay wax di nga gis mboote yo mosoo gis ku la ne kii un mois la am wala deux mois da nga naan mënta nek parce que papa muy Baye di remercier borom Baye di Maguette Cissé wax dëgg yalla moom defal ma beneen teranga entre parenthèse defal ma beneen teranga doomu Mayu bi papa yi la donc bible, dafa pour wax la rek fi jeune mal bi bokk dafa nekk benn ne si mensuration tollul ni xari mais mi ngi jur li xari jurul tey ku jur jeune mal bi da nga naan kii tey doomu wala doomu Unies la. da nga tamit kazalika donc potentiel génétique bi nekk ci baay bi nekk ci jeune mâle parce que doom naan doom ja baay ja wax dëgg yàlla yaay aussi tamit bokk ci sang bu baax muy sangu tijaan bi sangu tijaan Tyson la jeune mâle aussi am ci sang parce que sëtu joj la yaay ji la kan du la donc mu sang yu moom la jeune mâle bi dajale wax dëgg yàlla macha allah bon ñi may bàyyi xel ak di gëstu li may liggéey déjà damay commencé sama mbokk ci sama yaay mère bi wax dëgg yàlla sonn na si xar yi du ma ne sonn na si xar yi mais si ma la sonn parce que gis na li may daj ci xar yi métti na trop wax dëgg yàlla damay fayee ko weer yëpp mu dem ci xar yi mais nag bëgg-bëgg bi ak amour bi mooy tax du ma ko yëg parce que liñ naan coono coono bànneex la ñi may bàyyi xel sama papa tamit si la bokk. mu may ñaanal parce que moom dugg na ci élevage bi xaw ci découragé tuuti parce que toppatoo bee jaarul woon yoon dem ba doomam di toppatoo dem ba am ay éleveur dem ba am ay xar laadum yu mel nii wax dëgg yàlla di leen ñoom ñaan laa leen di seen ñaan laa soxla ak samay frères samay sœurs seen ñaan laa soxla éleveurs yi aussi soxla naa seen ñaan ñu ko ñi samay grand yi wax dëgg yàlla nekk yàgg ci élevage bi soxla naa seeni conseil wax dëgg yàlla di leen wax ne ah boy bi daal mi ngi ñëw avez allah nañ ko parce que base bi commencé na baax wax dëgg am nañ géniteur ne donc pourquoi pas résultat am waaw gars yi ñu xel man par rapport ak éleveur yu bëri dama foire parce que deux ans et demi dugg sectoriel bi may dugg sax ñu bëri ñu ngi may reetaan wax dëgg yàlla ñenn ñi gis ñoo samay xar ñenn ñi yaakaaruñu woon ne mën naa créer benn buzz ci foire sectoriel bii passé bi amoon euh, Géejawaay le 18 euh, mai passé ba yàlla def ñu qualifié très sincèrement visibilité la ñu bëggoon gis nañ ne am nañ quelques qualités yenn qualité yi yenn éleveur yi am pas ñëpp parce que am na ñoo xam ne ñoo ñu gën qualité fuuf ça il faut le reconnaître visibilité lañ bëggoon parce que dañu nekk foo xam ne soo amul visibilité rek nit ñi duñu xam sa liggéey duñu xam sa duñu xam sa sa sa say valeur xar ñu dugg fa pour am visibilité wax dëgg yàlla jaay ñu fa benn xar visibilité rek moo ñu fa yóbboon yàlla def ñu qualifié di préparer Saladam Saladam nga xam ne c'est sur le plan national et international donc les gens viennent un peu partout donc foofu aussi ñu fay utaat visibilité hormis visibilité bi. Euh, concours aussi da lay gën a yokk gën visibilité ñuy préparer jeune mâle bi wax dëgg yàlla muy dugg catégorie jeune mâle di préparer aussi Mami Fall la grande dame de la bergerie Ladoum Vision wax dëgg yàlla moom moom sama xol laa ko def di préparer parce que moom mës na dugg concours avant ma ko jënd d'après les archives en 2015 moo jëloon deuxième meilleure femelle Thiès donc bii mooy deuxième compétition am ñu koy dugal catégorie femelle kii aussi mooy déggéen moom aussi ñu ngi koy préparer pour mu dugg femelle wax dëgg yàlla moom boo xoolee am na maturation yu baax longueur bi hauteur garab bi ak esthétique bi yëpp macha allah ñu am si yaakaar. beneen bi ñu dugal concours aussi mooy doomu Mami Fall bi ñu ngi koy dugal catégorie femelle catégorie euh, jeune femelle mooy agnelle yi moom mook jeune mâle bi ñoo bokk catégorie mais bii mâle la bee femelle la donc loolu la daal di ut visibilité wax dëgg yàlla éleveur yi gën ñu xam ñu gën a xam suñu liggéey waaw xam ne daal. am nañ si part de marché si si élevage bi comme ñu ngi waaj a jeexal émission bi ñu ngi maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di sant sunu sëriñ élage Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom wax dëgg yàlla mi ñu xamal yonent bi ba xam na yonent bi rek a ñu ñor loolu ginnaaw élevage la lu tax loolu sax peut sax ñu dañ ko hérité parce que yonent bi Sam la woon commerçant la woon donc mu nekk liggéey bu Barkel, wax dëgg yàlla xar moom je pense que dara gënu ko Barkel, dara gënu ko Barkel. peut-être que barke bi mi ngi jóge sunu maam Ibrahima donc bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant sunu sëriñ El Hadj Mawou maa ngi sant sama papa bu baax a baax a baax a baax moom mi ma may permission euh, terew ma benn yoon wax dëgg yàlla mënoon na ma ko tere parce que élevage bi metti na ba mu ciy dugg. début bi sax yaakaar na yaakaaroon ne damay yàq xaalis wala dara mais léegi moom je pense que comprendre na di gërëm sama yaay bu baax moom moom ñaan moom ñaani moom da ko rek ne du ko jox kenn wax dëgg yàlla di gërëm samay xarit di gërëm samay xarit bu baax di gërëm Amadou Touré bergerie bi foofu la njëkk nekk ci këram di gërëm Matar Naar bergerie bi foofu la jógee nekkaat fa ñu liggéey si xar yi bu baax a baax ba bergerie bi ni mu ñëwee fii di banyak a aussi ku ñuy wax paate paate aussi tamit benen bergerie bi kërëm la nekk moy ñëw aussi di di ñëw di pikir xari di leen topoto yor scooter am sonn trop paate borom kutia au passage di ko gërëm di gërëm samay xarit wax dëgg yàlla di gërëm éleveur golf yi ak éleveur Cambérène ni ku si mel ni Zal Touré ku si mel ni Ahmed Ndiaye waaw ku si mel ni Ibrahima Ibra Ndiaye ku si mel ni Papa Ndiaye Matar nar waaw di gërëm gaa yëpp Maguette Cissé Joj bu Cameroun waaw di gërëm éleveur yëpp wax dëgg yàlla di sant aussi koo xam ne mënu ma ko fàtte si élevage parce que bi may soog a door këram laa daan nekk ba ay guddi ba yàlla ni mu defee samay xar daf may sànni xeer sax léegi naan ma ay bi nga amee xar ba lay ñëwatu sama kër muy tudd Siré Jakite wax dëgg yàlla may na ma ay croisement si ay xar xam nga may ma croisement si ay xar may ma daan ma jox ay conseils Wow, di ma tete si xar yi ba double face mi sax di sëtu boy séeréer ñaari doom booy séeréer jur moom moom ko joxoon si Pa Massou Mbodj ginnaaw yàlla su ma ko jotee moom la di ko remercier parce que am na lu mu def si man wax dëgg yàlla tey bu ma ba am fit di exposer foire wala di jënd yenn xar yi ginnaaw mom moom am une part de responsabilité donc di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax voilà noonu la